يسر لي ميسر العسير محتار لي بلا مزير ولا العين لسواي مدبرا بما على زر يدوم دبرا مع تواجه مكاره يا باخ قبا بذكري وهو ليا رديت وواني راضي بلا مكان ولا أمرادي ردا لغير جيوتي سيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جيوتي العين يزول لخيرنا المنى هدي يدي من الإله والنبي كل يدي سفت وسفت وسفت توبي واد واد الإمام على قيال معلوم بها بدل اليوم برب الغيوب أعزني مما خلوا وقيوب لا يتوجه لنوم مطيبون عني مع مكاري وتعب سعادتني بخير معو كتبت وكوني الخبدا قديم قسبت شقر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا نزير من ذنني خير قديم مصطفى فإنني أعلم بما سواك وسلموا إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى بسم الله الرحمن الرحيم هب لي مرامي يا وهاب دون عنن ولتكفني برسول الله كل بلا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki julli di rawatina bokki taalibe yi rawatina mboolem ñiy siifur internet bi rawatina ñi nekk ci jaaratullahi TV seen mbokkum taalibe maam Aslo di jëwriñ ci soxna maam jaara Mbàkke moo leen di nuyu te di leen siyaara di ñaanal Serigne Touba Serigne Mahamadou Muntaxa mi woote woote bëri bii di bisu xasida yi tey te képp ku fi ñëw rek yëgaan nga sa bopp ci sa diggante ak sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi te dolli kattanam ak wéram ci barke Seyxul Xadim waaye di ko beral ak ñaan soxna maam jaara Mbàkke bintu Serigne Mahamadou Muntaxa mi nga xam ne moom la ñu àndal liggéey bi mu mel ne nag kàddu yi kàddu yi cant la rek yu tukkee ci soxna maam jaara Mbacke bintu Serigne Mahamadou Muntaxa jëm ci jàmbaari maam jaara yi nga xam ne ñoo doon jël seenu ñaq di ko tàbbal ci bisu xasida bi soxna maam jaara nee na ginnaaw ba mu leen nuyoo mu ngi leen di cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul mu waay ndax foogoon na ne sax mbir mu du toll nii waaye saa su nekk rek taalibe yi di jël seenu ñaq ah, di ko ko jébbal ngir mu defal ko ko ci bis bi nga xam ne ah, taalibe bu nekk rek. Euh, yaakaar na ne bis bi aajo ju mu am bu ko ci euh, yéenee saafara suñ borom dana ko ko saafaral kon soxna maam Jaara Mbàkke euh, mi ngi am kontante lool ak cant ci dëkk ba sell bi nga xam ne bi ngeen ko joxe seen addiyee fi la leen ko indil fii leen ko waajale defaral leen ko ay bernde waaye yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacke woo te muy ahlu xasida ba mu waxee ne aqsamtu billahi inni li nabi abada xillun wa xibnu ma abaahu ya baahu tara xasaahida tawhid li malikina kon ñooñu la soxna maam jaara Mbàkke bintu sëriñ Mahamadul Muntaxa ah, yóbbul seen addiye jooju nga xam ne moom ngeen joxe woon kon na ngeen wax mbolem yéen jàmbaari maam jaara ne alhamdulilahi rabbi alamin ci seen jëf ji ngeen jël teg ko ci loxob soxna maam Jaara bintu sëriñ Mamadou Muntaxa waaye nag mu séddale leen ko ci njabootu sëriñ Touba xaadim rasul gi ndax sëriñ Touba ko fonkoon xasida yi la waaye fonkoon jànkate xasida yi la kon na ngeen xam ne ah yéene ji ngeen amoon ah yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekk ndakaaru ak fu ngeen mën a nekk te amoon ngant na leen leer ne ah, seen yéene agsi na cay fii ci dëkk ba sell bi boromam waxoon ne wajal ilaahi maskani Touba abat yow sunu borom maa ngi lay ñaan na nga ma defal sama dëkk bi muy ak texe ba faw dëkk bii nag ah, foofu la nu nekk ci kër Serigne maam Thierno moom Serigne Moussa Fam Serigne Basirou di ñaan yàlla doole ko kattanal ba moom it ah, naal wii nga xam ne moom la ko Serigne Touba du Mouhamadou Mountakha Mbacké jox ma université bi mu egg ci lu kawe njortam ci barke Seyxul Xadim fii ci pencum Daarul Minan la ñuy àddoo ak yéen ci kër soxna maam Jaara Mbacké muy am mbégte boo xam ne dafa tàmbalee. goo xam ne ci alhamdulilahi rabbil alamin jëm ci mboolem jàmbaari maam jaara yi mboolem jëwriñ yi mboolem ñi jël seenu ñaq def ko ci bis bi nga xam ne ba yoonu murit taxawee tey ñu ngi ko door am te muy xalifa bopp seriñ Touba bu woote bisub xasida ñu ngi ko door a amee ci seriñ Touba Serigne mun Mountakha kon la Serigne Khadim waxoon ne illaahi ilal Mountakha yan yàlla gën a dollee wàcc ci Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mountakha mbégte rawatina nag. Ah, mun na alay bil ulumi wal amal bil muntaqa wale kamilil amal Serigne Touba daa ñaanaan boroomam ci xam-xam bu sell ak jëf ju ñu nangu waaye nag mel ne dafa joxoñaat Serigne Touba Serigne Mahamadou Muntaqa doon tey rasulullahi moom la doon wax di ko way waaye day tat bi waat ci xalifaam bii nga xam ne moo fi nekk di seriñ Touba Serigne Mahamadou Muntaqa kon bokki jullit yi bokki taalibe yi ah, bokki jaaratullahi TV ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ah, suivre internet bi ak soppe Euh, soxna Mariama bu sa jaaratullahi bintu Sëriñ Mamadou Muntaxa ak mboolem ñi jàpp ci liggéey Poroxaan bi seen mbokkum taalibe maam Aslo di jëwriñ lu xeebu di jàppale soxna maam Jaara Mbàkke ci liggéey bi nga xam ne benn liggéey féetewu ko kaw ndax Sëriñ Tuubaa kat lu coow li bari bari Poroxaan la ne ku ne fa jàng as diir boo ko fa fekkul mu fekk la fa kon nu xam ne kot yéen a ngi ànd ak soxna maam Jaara Mbàkke ci liggéey bi waaye ngeen joxoon ko seenu ñaq mu defal leen ko ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu nu nangu la ndax Serigne Touba Xaadim Rasul nee na kat xasidaam yi lépp lu mu ci bëggoon boromam da ko koo defal moo tax ama naa bi karam muy xasida yi nga xam ne moom la mujj taalif ca Buqatul Mubarak nee na boobu bépp suñ borom xaaj boobu yàlla da koo nangu kon yal na yàlla nangu suñuy mbir euh, noo ngi waxtaan ak soxna si léegi ci biir rek mën naan ko mbàkki day mbooloo mi bari na lool mu ne lii day firndeel rek li Serigne Touba boo ak boromam loolu nag moo waxal borom ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana li Serigne Touba nee na am naa xam-xam bu wér ne man Ahmadou man mi la yàlla nekkal te man kaana lillaahi kaana laahu lahu képp ko nekkal yàlla yàlla nekkal la Serigne Touba nag daa nekk ci boromam di liggéeyal rasulillahi ba boromam wàññi ko nekkal ko moo tax nag moom ay mbiram eh, lépp lu mu yittewoo saa su ne day day dox daray Serigne Touba du taxaw bi àddina demee ba tëju ba dara yëngatootul Serigne Touba képp la waa këram di liggéey yal na yàlla doole kattanal Serigne Touba Serigne Mamadou Mountakha ba yéene ji mu am ci lislaam yéene ji mu am ci euh, liggéeyal ku Serigne Touba mu am ci lu kawe njortam yal yàlla guddal aw fanam te bàyyeekook sagoom ak xelam ba université bii mu naal mu yegg mu fekk ko te jullit yëpp fekk ko te ñëpp jariñu ci noo ngi am mbégte lool ci kàddu soxna maam jaara bintu Serigne Mamadou Mountakha doon àddoo fii ci ci dëkk bi nga xam ne Serigne Touba tudd na ko lu bari ci xasida yi waaye di siyaara bu baax nag njabootu soxna maam jaara gépp di siyaar mboolem taalibe yi di di siyaar mboolem soppa yi kon loolu moo doon kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci soxna maam jaara bintu Serigne Mahamadul Muntaxa ñëw ci jëm ci jàmbaari maam jaara yi nga xam ne guddi ak bëccëg suba ak ngoon saa su nekk rek ñi ngi jël seenu ñaq di ko jox soxna si ngir mu defal leen ko liggéeyub sëriñ ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi kon noo ngi jaajëfal jàmbaar yi jàpp ci liggéey bi yëpp rek wunu kenn kon wasalaamu aleykum axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin